restriction marché yeeg yu ni mel mais ci biir marché yooyu la fa la ñuy dégg yeneen muy wàllum njëgu dund nga xam ne dafa cher ñenn ñi di yuuxu naan ana ministre bi ñu wàllum commerce muy amin asom Aminata Diatta euh, loolu tey est que du nekkaat beneen mbir boo xam ne aussi war ngeen euh, du beneen mbir boo xam ne war nañ ko jël au sérieux fii ak donc ñun euh, yow yaa wax sabab ñun ci mbir moomu instant bi loolu moo ñu soxal que candidature à deux mille vingt quatre ñun li ñu soxal mooy euh, am na conjoncture boo xamante ne installé wu na ci àddina bi Sénégal moomu ko installé wu na ci àddina bi depuis près de trois trois trois quatre ans vraiment àddina bi yëpp nekk ci benn dynamique inflationniste boo xam ne euh, ñëpp xam nañ ko alors suñu réew aussi réew bu nekk ak nu mu caractériser woo ñun suñu réew nekk réew moo xam ne. euh, je crois c'est en 1994 la ñu dugg ci libéralisation secteur commerce ci lu bëri ba mu des certaines denrées de première nécessité yoo xam ne euh, dañ ko ciblé ba nga xam état bi dafa ne lii nag moom njëg yi dama ciy teg benn veto mais dañu dugg ci système de libéralisation système de libéralisation da ngay gérer euh, approvisionnement ak consomation donc mu nekk dynamique boo xamante ni wax dëgg yàlla surtout dans nos pays en voie de développement dafa difficile pour nga pour nga gérer ko le ministère du commerce am ay structures euh, gis ngeen ministre du commerce euh, sorti yi mu def euh, fan yi les direction le directeur de la euh, du commerce, du commerce intérieur expliqué nañu li nga xamante ni moo waral inflation bi xawoon a am tuuti pendant une certaine période et remise à donc problème boobu ñun tey moo ñu tenir à cœur pour que le man le le le le le pouvoir d'achat du sénégalais mu bañ ko gën a éprouvé mais xam ngeen ne pouvoir d'achat bi c'est éprouvé partout dans le monde benn euh, ñaareel bi mooy état fi mu toll nii l'état subventionne pratiquement tous les mois état bi li muy liggéey yëpp fi mu ne nii c'est pour le dumping des prix pour que euh, prix yi mu bañ a mu bañ a exorbitant c'est la priorité du président de la République te ci loolu la nekk te je pense que euh, comme je dis toujours hein mm -hmm. opposition ne veut pas dire euh, être euh, toujours dire contre le pouvoir mais il faut mhm. savoir euh, apaiser aider suñu population ñu développer des, des des capacités de résilience pendant des per des périodes. mais est-ce que ñun Sénégal waroon nañu toll foofu boo xamante ne chaque jour c'est des solutions conjoncturelles rek la ñuy jël. duñu prévenir dara ba agsi fii parce que am na yu bëri yoo xam ne le président avait prôné l'autosuffisance tey autosuffisance boobu suñ ci àggoon ces problèmes qu'on rencontre tey di duñ ko jànkonteel yaa ngi ne ministère du commerce am na ay démembrement seen démembrement également ay contrôle économique yi ni mel dafa mel ni tey jii c'est les commerçants qui ont le dessus sur euh, le ministère du commerce parce que ñoom fi mu nekk nii lu leen neex la ñuy def waaw commerçants yi c'est pas qu'ils ont le dessus dañ koy teg ci libéralisation xam nga libéralisation mooy euh, dañuy marché bi c'est ouvert da ngay dem jënd marchandise bu importé jotee ministre du commerce benn veto la am mooy surveiller la euh, l'achalandage des produits sur le territoire national en faisant d'une pierre deux coups da ngay da ngay bës tuuti di wàccee c'est-à-dire quand il y a une production locale soo bëggee <coughs> pousse tuuti sa sa sa production locale pour que nit ñi daanaka imposition la parce que le choix parfois xam nga ñun suñu euh, actuellement c'est la mondialisation l'individu moo nekk le cœur des solutions politiques mais malheureusement cet individu-là à la liberté tey jii Issa dafa am droit indi pro indi indi je donne l'exemple sobleem Issa dafa am droit indi soble tubaab bi comme li ñu wax ñun ñu am suñu producteurs yi am soble local local soo bàyyee consommateur bi moom kese <coughs> son choix va vers le soble tubaab parce que am na ay idées préconçues wala yeneen i façon yu mën tax mais lu produit bu ñu puusul du dem il faut que ñu accepter consommer li ñu am di ko améliorer di ko améliorer ba mën a dab li nga xam ne ko pousse defaral leen ay piste de production chambre froide ak yeneen ak yeneen mais bu ñu ñu pousse nga ñun tey on un pays en voie de développement mm-hmm. on a des réalités ñun nekkuñu pays boo xam aujourd'hui même dans les pays développés ils ont des problèmes waxatuma ak ñun ñi nga xam ne dañu am pays développé nekk un pays à voie de développement donc y a une dynamique de la population par rapport à l'éducation bi ñu war a defal suñu population sur le consommer local moo gën nga gis y a des programmes qui travaillent là-dessus donc c'est tout un arsenal qui doit aider je dirais pas l'État mais aider la population à pouvoir s'adapter à la conjoncture tey à pouvoir s'adapter yi yaay Fatou wax Georges est-ce que tollooti nañu foofu est-ce que mënati nañu adapté wu ci loolu bon man daal li may euh, li may si xam mooy je crois que tant le, le front social fu mu toll instant yi la première préoccupation en tout cas le premier boulot du futur gouvernement sera de prendre ce taureau-là par les cornes le problème des inondations parce que le, le prochain gouvernement en pleine inondation lay fekk certaines personnes en tout cas oui. certains Sénégalais cette histoire de de de, de du coût de la vie du coût excessif même de la vie ba ñëpp mm-hmm. di ko joytu bi léegi yaakaar naa dégg naa fu ñu nekk sax ne climatique bu doon jaar juróomi dërëm mu ngi si fukki dërëm. bien sûr almet yokku na. almet soble bi doon kilo bi ñaatal doon jaar yi moom mu nekk maire xam na. léegi kilo soble 1000 francs. waaw 1000 francs léegi mu ngi xaw ma 2000 xaw ma laan donc sëpp pour le prochain gouvernement véritablement le président de la République doit tout fair pour nous nommer un d'abord premier ministre boo xam ne bu ñëwee. du jéem xool ndax man est-ce que su su suy euh, suy rasé matin man est-ce que je suis pas assez beau pour être président de la république. <laughs> ñu wut premier ministre boo xam ne kii. liggéeyal liggéeyal askan wi moo tax mu jóg te mu teg aussi des ministres yoo xam ne bu ñu ñëwee saafara soxla askan wi ak problème askan wi moo tax ñu jóg mais pas di calculer deux mille vingt quatre nañu calculer ba xam nañu jéem a nekk commencé di battre campagne pour suñu jàll candidature Macky Sall en deux mille vingt quatre. d'accord euh, Pape situation bi nga xamante ne ñu ngi koy dund tey ci bañam moom li nga xamante ne mooy suñu bopp euh, rawatina ci li ñu gëm loo woon si wàllu autosuffisance am yenn yoo xamante ne duñ ko jéggaani l'industrialisation entre autres tey yooyu yëpp dafa impacté ci panier de la ménagère est-ce que Georges ni mu koy wax le temps n'est pas trop court également pour euh, Malheureusement, malheureusement le temps est très court pour le prochain premier le prochain gouvernement mais xam nga quand même on peut faire on peut faire et refaire ah waaw mënuñu nekk en quoi faisant mënuñu euh, je donne l' je donne juste un nekk dëkk bi nga xam ne où la douane se glorifie de faire. mille milliards de bénéfices de recettes par an. mooy ça veut dire que. ça veut dire que l'importation ça veut dire que on importe foison dans ce pays. Hmm. alors que béykat yi dañuy béy seen soble seen pomme de terre mënuñu ko jaay on ne crée pas les conditions pour ñu jaay ko sa veut dire quoi ça veut dire que on est toujours dans l'état des ors bi nga xam ne moom la ñu colonial colon bi bàyyil. malheureusement xoj voilà malheureusement euh, <laughs> xoj bi temps bi xoj nañu mais une chose. pour le ministère du commerce je crois que tey jii il devrait au moins une chose se rappeler kii au Sénégal li taxoon qu'il y avait eu une stabilité des prix mooy que y la caisse de stabilisation et de péréquation. est-ce que tey secondes le journal va commencer en secondes est-ce que tey jii euh, am na démembrement yi ngeen bokk yéen ñëpp àddu si ñun ak njaay bi woote ngeen benn réunion de crise pour trouver des solutions. Euh, oui parce que le ministre a convoqué que cette réunion va se tenir et par rapport à ça le président devrait statuer sur les recommandations mooy comme li mu wax moi je suis je le dama koy delloo fekkee ci li mu doon wax jamonoy caisse de péréquation et tout ça mais xam nga libéralisation dafa am lu ko imposer donc il faudra que on va les, les réflexions se feront par rapport à, à, à la politique global autosuffisance yi ngeen di wax nag c'est des objectifs et nous espérons que nous allons les atteindre. d'accord Issa Tine ñu lay jaajëfal euh, yaay Fatou Diagne ñu koy euh, jaajëfal di maire bu Ngathie Naoudé bokk ci mouvance euh, présidentielle Georges Nesta Diop également merci <laughs> Pape Sané merci également di jaajëfal Pape Modou Fall Pape Samb ak sama Alioune Sitoé Diatta Mami Kanté di jaajëfal Cheikh Tidiane Diop Barkassi Diop ak toute l'équipe ak ñi nga xamante ne ñoo ci jàpp yëpp Moustapha Diop pour